Paris waaye Cheikh Yérim Seck mu ngi bàyyi xel bu baax li nga xam ne moo xew ci Sénégal rawatina li nga xam ne moo lëmbee dëkk bi jamono ji mooy dàq bi ñu dàq élection présidentielle nga xam ne loi bi voté nañ ko ci assemblée nationale. ci ab chronique bu mu def journaliste bi di dellu siwaat ci li nga xam ne moo tax njiitu réew mi Macky Sall dàq élection présidentielle yi ñu waroon amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février. bokk na ci gàkk-gàkk yu bëri yu ñu nemmeeku ci processus électoral bi lu ci mel ni neenal bi ñu nendal candidature bu Karim Wade Cheikh Yérim Seck jàpp ni loolu teguwul ci lenn ndax candidat PDS bi renoncé woon na ci li nga xam ne moo di nationalité française ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre bi ñu weesu bokk na itam ci situation Rose Wardini nga xam ne teg nañ ko loxo liñ koy toppee nag moo di parjure ñeent fukk ak benn candidat yi nga xam ne dañu leen a rëkkale ci ay conditions yoo xam ne kenn xamul nu mu demee ak Amadou Ba bi nga xam ne ñu ngi koy jiiñ ger ñaari juge yu nekk ci conseil constitutionnel Cheikh Yérim Seck jàpp ne bu ñu xoolee loolu lépp dafa jotoon njiitu réew mi Macky Sall dakkal li nga xam ne moo di processus électoral bi nga xam ne jamono ji amatul benn crédibilité wante dàq ay élection présidentielle lu jar a xolaat la bu ñu sukkandikoo ci kàddu journaliste bi wante nu mbir yi toppante moo waral ñu yegg fii journaliste bi di xam ne ni crise bi am ci parti présidentiel ak coow li nga xam ne candidature amatu Ba indi woon na ko ci biir Benno Bokk Yaakaar bokk na ci li nga xam ne moo tax njiitu réew mi dàq élection présidentielle yi ak lu ci manti am rek ndogal bi nga xam ne juuti réew mi jël na ko ngir dàq élection présidentielle am na lu bëri loo xam ne mën nañ ko cee wax Cheikh Yérim Seck jàpp ni laata ñoo jël bile ndogal waroon nañu amal ay waxtaan ndogal waroon nañu amal ay waxtaan ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq.